à Sénégal asalaamaaleykum wa diaspora tey altine juróom-ñeent fan ci weeru juillet atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett fii ci Touba Mbacké parti bi ñuy wax dëgg moo ko te président Pape Modou Fall jiite ñoo teew fii ci Touba ci kër coordonnateur bi Euh, di bàyyi aliment di man mi di wax ak def fi benn réunion boo xam ne dañ ci doon ci mbirum réew mi waaye également ci mbirum parti bi euh, ci mbirum réew mi gis nañ ne réew mi vraiment euh, laaj na lu bëree bëri bëri loola ci la nekk ngir na ci pour réew mi Euh, mën a jëm fi ñu ko bëggee mbirum parti bi euh, fi ñu ci nekkit mooy li nga xam ne mooy wàllu élection yi di ñëw di dem dix euh, yàlla dafa dogal nag suñu parti bii di dëgg moo ko du participer ci élection yooyu di ñëw waaye ginnaaw yàlla dogal na am na yéene ci réew yi am na xam-xam bu mu gouverner ci réew mi lu tax mu croisé ay loxoom rek ci réew ci élection yooyu la ba tax na euh, kàngam yi nga xam ne ñooy fukki réew mi euh, dana seet ku ci parti bi dëgg moo wóor mën a àndal mën a mën koo jàppale euh, ba lii nga xam ne moom la waa réew mi bëgg bi nga xam ne moom la mag ñi ñaanoon démb ak bërki démb di Sénégal bi nga xam ne nii moom la kenn koy doon rêve loolu président Pape Modou daal ne def ko waaw ah, euh, moom ci transparence bi noonu la ko choisir boppam mais dañu ne nañ réunir ci suñu biir choisir ban candidat lañuy àndal ci élection yooyu la def nañ ko tey ci tisbaar dañ ko def ba yàlla dogal na tënkuwoon ci benn kàddu ñëpp. dañu tënk nag lii la euh, dañoo delloo président weyte bi ndax ginnaaw xam nañ ne borom transparence la te itam jox na kilifa yi ne ci parti bi cër ngir ñoom ñu wéy seen autonome bopp yi ban kànd la ñu àndal loolu waral na ñun suñu bopp ñu wëlbatikuwaat ne ko seetal ki nga xamee ni jubu la ki nga xam ni jàpp nga ne bu ànd ak moom réew mi dana jëm pour ko bëggee gàtt ak moom. kon président Pape Modou euh, ñu ngi lay jox carte blanche di la wax ne mën nga choisir candidat bi nga bëgg àndal ci élection 2019 bi di ñëw euh, di leen ci ñaanal vraiment euh, li ñuy bëgg ci réew mi suñu borom defal leen ko suñu borom kattan leen ko bu loolu passé mais parti bi di dëgg moo du parti xulo waaye du parti xastante du parti werante parti la boo xam ne nii dañuy xool li luy mànkoo ci réew mi mu indi ko parti boo xam ne nii dañuy xool kenn ku ne ci waa réew mi li si ittee ñu fexe ba nga am ko ci gën gaa fi am loolu moo tax dëgg moo wóor tudde ko dëgg moo wóor te lépp aussi tam nekk ci dëgg ak fulla ak fayda loolu daal ci tënk mooy li xam ne moo fi dajale woon tey mbooloo mi ñëwoon ci kër yi doon def euh, déclaration bi man en tant que coordinateur départemental ñu jiital ma ne ma na wax ci turu euh, parti bi waaye tam ci turu département bi xamal askan yi xamal sénégalais xamal waa diaspora ne leen fii au niveau de Touba Mbacké jox nañu plein pouvoir président Pape Modou Fall pour mu choisir candidat bi mu àndal ci élection 2019 bii ci kër gi moo doon réunion bi moo li nga xam ni vraiment wax dëgg yàlla mbooloo mi. Ah, ñu ngi gërëm aussi suñu mbokki journalistes yi nga xam ne vraiment. ñoom kenn gàtt ngalaam kenn du ñoom ah, lépp lu ma sax xëy ci réew mi rek taxaw nañ ci fulla ak fayda def ci yitte ju mag def ci liggéey boo xam ne vraiment liggéey bu sax lay doon bu mucc ayib kon ñoom tam vraiment ñu leen remercier di wax ne gàcce ngalaam maa ngi teew yeneen kilifa noonu yoo xam ne desal nañ ci waxtaan bi des na fi xañ na du ñàkk ñu jël ci ay kàddu ah, mën a waxtaan ci li nga xam ne mooy wàllu réew mi ak wàllu élection yooyu ni ñu moo fi dajale woon mbooloo mi tey jii ci tisbaar sama kër ah ñu doon waxtaane ci wàllu élection yi di ñëw ah, eh, ñu doon jox suñu président Pape Modou Fall plein pouvoir que mu choisir ban candidat lay àndal ci élection 2019 yi di ñëw